si. ñoo ngi lay nuyu. ñu fay soxna si. Euh, tur bi naka la soxna. Aji Guèye Aji Guèye. soxna si aji ñu ngi ci période ñu fekk la ci marché HLM. Ah, ci période tabaski bi lan mooy tendance bi. tendance xanaa marinière yi ndax xam nga dafa tàng ñu nekk ci coronavirus dara amul ñu def ay marinière may yu su ne mu finitionné ko ba mu baax. finitionné ko ba mu baax. mi ngi jar bu baax macha allah ak vaal yi vaal yi nag luy tendance vaal yi mooy tendance. soxna si da nga wax ni yéen a ngi ci période coronavirus est-ce que ak ni kii bi demee pandémie bi demee est-ce que nit ñi clients yi ñu ngi ñëw ni ñu waree ñëw. ah ñëwuñu ni ñu war a ñëwee vraiment ndax fi mu ne nii nit ñi danoo sonn coronavirus kenn ñëw waaye nag ñu ngi sant yàlla waaye ni mu daan neexee neexe ci vraiment. ñoo ngi dégg gouvernement bi di wax temps yi ni dafay déplacer marché yi yéen euh, bu leen déplacer bokk ngeen ci wàll. ah ñun de fii moom danoo yëngal gësam moo tax. ñu bàyyi lépp ndax ku ne gis na pono yeeg kii média yëpp a fi ñëwoon ndax vraiment danoo waxoon fi kenn du fi lal bëggoon dagg place yi lu seer bëggoon koo dagg lu seer ñu takku ba dëgg defanteeg ñoom ci lan mujjee ñëw daggal ñu ku ne 20 000 20 000 ndax coronavirus bee ko waral. ah da ngeen di fay ku nekk 20 000. par mois événement bi rek 20 bu dul événement bi kii rek ngay joxe euh, fanweer juuti. Ah, waaw léegi bàyyi nañ ñu ñu liggéey vraiment bi ñu ba tey dañ ñu bàyyi. man maay nday maat bi fay naa leen. naka maat bi mi ngi dox. maat bi waaw mi ngi dox de ñu ngi sant yàlla maat bi moom ñu ciy sant yàlla wax dëgg yàlla. yàgg nga ci. yéen ba ba fii ba may jaay de boobu maa am 12 ans maat bi ci laa ngénte samay doom maat bi ci laa ngénte samay doom yëpp ku defal maat asalem ci man la ko gisee man mii maay nday maat. période bu màdd amul nan ngay def pour satisfaire say màdd amulee day fekk ma congelé màdd gu baree bari moo tax man du ma ñàkk màdd man damay jaay màdd bu ñàkkee damay jaay bu amee damay jaay. gis nañ fi tey nga teg màdd euh, am benn variété bi. léppay am variété bi léppay am dara day am cerise tey da ngeen fekk cerise bu jeex da ngeen fekk tey daqaar bu jeex ah ngeen fekk buy bu jeex. comprendre nga lépp laay defar amul lu ma bàyyiwul cerise moom gaañ ci mën lañ ko gisee mango bi ci mën lañ ko gisee buy bi ci mën lañ ko gisee. waa mère looy wax jigéen ñi tabaski bi nga xamante ni jënd cheveux ak jasne jaral na leen lu ne. xam nga rek dañ toll si jamonoy sanse toog toll ci jamono yi bëgg sa bopp moo tax xale yi cheveux da leen jaral lu ne waaye na fekk rek nga am ngor liggéey ko am ko defal ko sa bopp. moo gën góor di la ko jox dafa lu la neex di la ko jox man de moom wax dëgg yàlla man bëgguma loolu man bëgg naa nga ñafel sa bopp am sa cheveux ah di defar sa bopp di defar sa yaram man daal bëgg naa loolu. mais ak période coronavirus bu metti bi lan ngay digal xale yu waaw corona bi da moom damaa bëggoon ñëpp toog seen kër euh, xaw a civilisé xaw a set tuuti xam nga. xaw a lu ñu tere ñu bàyyi ko te jéem a di sol ay masque yooyu. ñu war seen poche ci kër ma leen di xelal mooy daal ñu xam ne daal jamono jee metti rek ñu toog muñal seen jëkkër bu amee rek seen jëkkër dañ leen defal ndax ñun ba ñuy ñun ba ñuy sëy ñun suñ jëkkër amuñu woon dara mais tey tey macha allah ndax tey ñun ñoo toog di ñafe di liggéey jàppale suñuy jëkkër ba tey suñu jëkkër yi tey dañoo jaay ci màdd bi ba jox suñuy jëkkër ñu tukki tey kon jigéen dafa war a jàppale jëkkëram tey jëkkëram bu ko nee awma dafa war a muñ. mère ci biir néegu sëyam jigéen lan la mën a raweel boroomu jigéen mooy déggal sa jëkkër su la teree nga bàyyi loo am jox ko na set di ko sang di ko toppatoo di ko jox muy lekk loolu la góor bëgg. waaw góor da koy sang góor da koy fekk ca duus ba. dugal ko ci salle de bain jël sa njàmpe sang ba mu set jox set de gooma de góor da koy sang góor da nga koy sang mu bañ a tilim góor bu tilimee nag si ku jigéen ki la góor dafa war a set nga dugg ko sang ko ba mu set fomp ay tànkam diw ko ba mu baax wat moustache yi wat ruqruqaan yi jox ko mu diwu jox ko parfum fóotal ko ay yërëm mu set mu sol lu set di xëy ñu neex di ko jox mu lekk ba suur góor googu du la fàtte mukk googu da lay jàpp fukki loxo juróom ñaar fu mu dem day ñëwaat loolu man man maa la ko wax. seet googu daal lañ jéeg di rawee borom. man maay Ndeye Made ci leen fekk fii ci biir marché HLM ngeen di dóor waar tendance tabaski bi ren la. Ah, yii la suñu marinière yi rek lañ génne daal di def ni def suñu paañ yu baax daal di koy lakke xar mi rek yaa ma gën a xam dëgg neexul. ak période de coronavirus bi nga xamante ni a ah dañuy sant yàlla nam naan def moom defu ñu mais sant yàlla rek dañuy comprendre xam na fi réew mi toll la tey ñaan yàlla liy jóge fi. ci ci ngay jaay nii ban moo ci gën a nekk tànnaas bi daal bii la bi moo ci na gën a nekk tànnaas ak bii val borode xam nga ci tàngaay lañ ne suñu def suñuy kii waaw val borode def borode travailler ko kanam ak ginnaaw. ay robe ak ay marinière prix yi benn la wala dafa bari. non non prix yi du benn bu dee modèle bi moom mil lay jar bu dee bii 10000 bu dee bii 8000 sër bi dañ koy travailler ay ay modèle la model la waa bii tamit moom la daal lañ def xam nga dëgg neexul na fi réew mi toll feebar bi daa bari waa nit ñi xaalis ñu leen defal yii rek di leen ko basardeel lii daal nañ ko defee lakk sa bicc boo boo ko solee boo lakkee mu neex boo lakkul mu neex. si voile yi gis nañu dafa bëri qualité yan qualité la am ci tàngaay. dafa am nylon am coton man nag bii may jaay ni coton 100 pour cent la gis nga xale yi boobu ba tey tabaar fakkaar la moom rek laay jaay moo gën a gaaw sax ñoom yi macha allah ndax deux tons yi moo xew tendance bi deux tong la val deux tons la. moom la xale yi di yàq lakkee yàpp daal. kon bu nooy bi moo gën a jar. bu nooy bi moo gën a jar ndax coton 100 pour cent day day naan sa ñàkk daal. lan ngay wax sa mbokku jigéen yi tabaski bi ñu ñëw sàjj ba mu bari dool te defal seen alaaji ay marinières yu toog def ci finition def ci jour Sénégal jëm kanam nag dañoo ñekk ci feebar waaye loolu mënta ñàkk il faut ñu bëggal. waaw jigéen ju am day xëy fajar def laaxam def marinière bu ne muut def ay caraxam di jéggat nànk def ba mu baax. bu paree defaree laa xam ba teg def wàjjam def ay marinaatam def ba mu baax dressé daal jigéen ju am fem daal noonu la koy defee man mii de noonu laa koy defee incha allahu rabi. ma kontaan ci loolu ndax ku la doon jox bu la joxul da ngay xam ne am na lu tax coronavirus moom ñëpp la tënk fi ne bu kenn laaj kenn dara lu nu jox baax na man de aji noonu laay def barki Serigne Saali waaw. lii ñuy doog a dugg ci sëy am seen sutura jëkkër seere seen sëy bu neexee ñu muñ bu naqaree mu muñ. parce que say li ci neex tuuti la boo muñee ku muñ muñ da koy dégg ci njaak yi da ngay dégg ne njaaka nangu la njaaka nangul njaaka nangul ñàkk ko ñee mos nga ko yërëm njaaka nangul <laughs> jëf yaay booy